abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kësaloom si di baram eh, Cheikh Hassan Dème laay ñetteel fii Seydi Cheikh Hassan Dème moo ngi judd 1920 ah, la judd ndekete bàyyi magee woon na ko lu man ñaar fukki at moom nag ca Fuuta la jóge Euh, ah, kii euh, euh, nekk nekk naag benn sëriñ bu tudd Cheikh Seydou Chora su ngeen gisee may gàttal mbir yi ci temps bi la ndax xaw nañ jotaay bi xaw na yàgg Cheikh Seydou Cheikh Saïdou Chora benn borom xam la ca Kanel nekkoon aalim mokkaloon téere bu tudd Choraaw ñu ko daan woowee Cheikh Seydou Chora Cheikh Hassan dem nekk nag moom 14 ans di ko liggéeyal ci wàllu yàlla waaye ndekkete yoo moom lam ko doon liggéeyal ci biir loolu moo ngi doon tarbiyu waale tarbiyu nag eh, na ngeen ko xamee ci bàyyi ña ci jamono gi ak tamit na ko daan ñenn ñi defee ci jamono googu du benn waaw jamono jooju tarbiyu gi léeg da ngay nekk ak sëriñ bi di ko liggéeyal moo xam da ngay togg wala da taxañ ngi dégg de wala da nga koy bësal tànk wala da toggal ataaya nga nekk moom ci liggéeyal ko mu lay jox ay tawjihaat di la jox irshadaat waaye fuuta li ci ëpp mooy sëriñ bi day jël benn téere ci téere góor yàlla yi jox la ne liiral loo xamul nga ñëw laaj yi waaw loo xamul nga ñëw la ba léegi gis naa ay kilifa foofu ci Fuuta noonu la ñuy tarbiyoo seen taalibe yi waaw léegi nag ba ko joxee téere Jawahirul Maani Cheikh Hassan Dem di liir nee na Cheikh Hassan Dem nee na benn bés maa ngi liir ba dajeeg benn hadis hadis bi di wax eh, eh, hadis bi di wax eh, inna allaha xalaqa aadama ala suratihi wa qadafahu fi bahrihi yàlla sàkk na aadama ci meloom moom meloom moom d'abord loolu rek laay wax du ma meloom moom yàlla wala meloom moom aadama inna allaha xalaqa aadama ala suratihi wa qadafahu mu sànni ko fii bahrihi eh, ci géejam yàlla sàkk na aadama ci meloom mu sànni ko ci géejam Cheikh San Dem ne damir bee ko jaaxal fan lay dellu yàlla sàkk na aadama ci meloom moom moom man ci meloom moom yàlla mu ne su nekkee na nga ne ci meloom moom yàlla yàlla amul meloom léegi damir bi daf ko jaaxal soo ne yàlla sàkk na aadama ci meloom moom aadama aadama moom balaa ñu koo sàkk kenn xamul woon meloog aadama kon doo mën a wax yàlla sàkk na aadama ci meloom moom aadama kon wax bi day xaw a juutu ndax aadama balaa ñu koo sàkk amul woon melo ba ñuy wax aadama de sàkk nañ ko ci meloom ba ñu xam melo ba lañ sàkki aadama léegi xadis ba mu ko jaaxalee mu ñëw ci sëriñam laaj ko sëriñ bi nag ku màndu la ku baax la te gis nga góor yàlla ay façon lañ am na si ñoo xam ne lépp lu ñu xamul rek dañ lay wax lii xaw ma ko te danañ def te pour yàlla xamal la mu ne ko lii du sama xam xaw ma waaye incha allah dinaa la boole koo xam ne dana la xamal xam-xam loolu la ko sëriñ bi Cheikh Hassane dem doy lu ci loolu sëriñ bi nekk noonu Cheikh Seydou Soraw ba jamono mu dem aji màkka ba mu aji màkka dem jaar na Soudan aji màkka ba mu ñibbi si jaaraat sudaan ca Ummu Durman ca Ummu Durman nag la yàlla def mu génn àdduna foofu moom Cheikh Seydou Soraw waaye Cheikh muy dem léppam Cheikh Hassane dem la ko bàyyoo Cheikh Hassane nee na même dépasse kër gi ci loo xam la nekkoon mu ne mbir mi dem na ba métti ba jafe-jafe yu tar am ba sax moom def na ay tasarrufaat pour nga xam ne Cheikh Hassan Deme ngand la woon ci waxtaan yi man mii li may tuuti ay at yépp daan naa toog di déglu Cheikh Hassan Deme muy waxtaan lii nii xissa bi ma lay wax nii moom wa shahida shahidun min ahliha li ma la wax fii nii yëpp sànq mën na nekk ay nettali waaye lii moom li ma lay wax ci Cheikh Hassan Deme moom lii dégg naa Cheikh Hassan Deme di ko wax te fekk naa ay téere yoo xam ne ba mu koy taalif ba muy dicté nit ñi di bind maa ngi nekk xale maa ngi woon foofu ci biir di gis yi di bind te lañ doon bind téere bi tamit yaa ngi dégg Eh, ginnaaw gi jël naa ko liir te mu wóor ma ne lii ba mu koy wax maa ngi ko doon dégg dégg te nag jamono jooju li ma doon dégg yëpp li ci ëpp alhamdulilahi yaa ni <laughs> dama ko daan dama ko mokkal mu ne moom Thierno Hassane dem nee ne eh, def na tasarrufu ci lasraar xam-xamu lasraar ci yaa ni musallas xam musallas nag ñi jàng xam-xam lasraar musallasul Ghazali ak musallasul Kunti yi ñoom ñoo ko xam waaye musallas daal neen daal na ci def tasarrufu booba nag yegg na foo xam ne euh, dépasse bi jeex na te moom moo fa nekk moom la fa sëriñ bi teg il faut ci guddi gi mu def tasarrufu pour su yeewoo am am fu am fu mu jël te loolu naka jekk lu war a am euh, muy def tasarrufu ci musallas bi ne su yeewoo rek ku njëkk a fëgg sa bunt rek il faut nga jox ko dépasse bi loolu tawfiq la kon moo lay wane ba muy ñëw ci baay yi ñuy jàng moom jeexaloon moom dafa yaakaaroon ne moom dafa yaakaaroon ne su ñëwee ci baay baay du ko mën a yokk dara waaye mu fekk ndeke ba mu ñëwee ci baay lam doon jàng yépp mu ne fa wajadtuhu tariqan ila al ilmi ila al ilm ma fekk yoon la jëm ci xam-xam waaye yeggagu ma ci xam-xam ndeke lam doon jàng nee na yoon la jëm ci xam waaye yeggagul woon ci xam-xam ba mu yeggee ci baay la yegg ci aynal ilmi jëmm xam-xam ci la xam yàlla eh, Cheikh Hassan dem nag nee ne sëriñ bi génn na àdduna mu toog di ko xalaat jàngal nañ ko kaamil jukki bañ ko joxoon mu ne ba ñuy jàngal Cheikh Seydou Soraw kaamil téye na jukki ji di xaatir di xaatir bañ ñi ñu jeexal kaamil bi ñu jël jukki bi jàng ko waaye moom mënul sax jàng benn xaraf ngir naqar gi ndax moom tarbiyu na ci Cheikh Seydou Soraw 14 léegi fi mu nekk nii mag la fan lay amatee sëriñ gu muy tarbiyuwaat ci moom 14 ans ba man ko jox ndigal muy dem di jubalaate ca yàlla mu ne ci naqar googu rek mu tëdd benn guddi di xalaat rek ba gis Chérif Cheikh Abdou Latif benn shérif la ku baax la ñëw ñaanal ko nee na bi nga ko ñaanalee mu tufli tufli gi nekk ay fettu safara dal ci loxoom loxo yi weex mu ko ci kanamam mu ne cheikh abdoulatif bam shérif abdoulatif ba mu jàllee mu ne fa zahara lii a cheikhu ibrahim eh, cheikh yi cheikh saydou soraw cheikh saydou soraw feeñal ma mu ne cheikh saydou soraw ci fi xullatin bahiyatin jamila ci taar bu rafet mu ne cheikh saydou soraw ne gis nga shérif mu ne ko waa gis naa ko chérif abdoulatif ne ko ñaanal na la mu ne ñaanal na mu ne ko cheikh hasan dem laaj gam ma doon laaj te ba ma ne la xaw ma ko mais danaa la yónnee ci ku la koy xamal mu ne waaw mu ne ishab ila kawlax demal kawlax lii ci gént lañ ko ko wax Cheikh dem nee ne maa ngi toog di déglu mu ne moom kawlax mosul dégg baatu kawlax ci àdduna lu dul ci biir gént la ko dégg pour nga xam kéemtaanu Baay Ñas mu ne ko kawlax fan ci kawlax mu ne ko idhab ila ila al bu wa ila kawlax wa ila Cheikh Ibrahima Ñas baat bi ñëw na ci baat bi Cheikh Ibrahim ñëw na ci gént bi mu ne moom xamul woon Cheikh Ibrahim ci gént bi la ko déggee mu daal ceeg laysa ala wajhil ardi man huwa alamu minhu billah amul ci kaw suuf ku ko gën a xam yàlla yaakaar naa lii sax moo ci kaset yi ba léegi soo ko dégloo kaset Cheikh Hassan Deme da nga dégg muy wax wax ne amul ci kaw suuf ku gën a xam yàlla Cheikh Hassan Deme xam nga lu ko dëj Medina lu ko indi Medina mu nekk fa dëj ko walaay du caaxaan ponkalu xam-xam la dafa xam lasra dafa xam siira xam taarix xam maanaa nusuusul quran xam euh, mustanbat yi mustanbataat yi Cheikh Hassane Deme moom yaakaaroon na moom ci kaw suuf moom amul ku muy diirante mbagg ci wàllu xam-xam waaye nag yàlla daf ko bëgg a dimbale ba mu ko indee ci Baye Niass ba mu ñëwee ci Baye ges nag boobu la tàmbale alif ba moo tax cheikhaan yi nee fa lil ulama bi ilmukum mumtidaadun bihi saaru isa suilu ajaabu borom xam-xam bi ci yéen la ñuy yokkoo ba suñu leen laajee sax ñu mën a tontu lépp loo loo bëgg lu la lënt rek ci bàyyi soo delloo ci Cheikhaan da nga fekk leeralal na la ko ci ay kàddu yoo xam ne xikma la tuktabu bisaw bi zahabi Cheikh Hassan dem nee euh, ma daal di bind bi ma yeewoo ma laaj ndax am na dëkk bu tudd Kaolack ah waaw Kaolack Kaolack kay dëkk bu mag la Kaolack am na ko tudd Cheikh Ibrahima Niass waaw mooy sëriñu Kaolack aha waaw mu xëcc kayit bi bind bàyyi lettre yónnee ko lettre bu yegg ndeysaan ci bàyyi bàyyi bindaat ko tontu ko ne ko gaawal yow yaay ki yenu sama leer wax ko ay kàddu yu rëy yoo xam ne su nekkoon ne waxtu bi yaatu na dañ jàng lettre yi euh, après Cheikh Hassan dem nee ne ndekete lettre bi am na secret tarbi bi mooy awraadu tarbi tarbi yi ngeen di tarbi pour yegg yàlla xam yàlla te muy salaatul fatiha kese nag pour ñi nga xam ne yeggaguñ ci pays baay bi di dégg tarbi am na ñoo xam ne dañ lay wax ne soo ñëwee soo ñëwee ay talsam lañ lay jox nga du ko dof sa bopp bi wëlbatiku loo gis ne yàlla léeg-léeg sax am na ñoo xam dañu ne soo ñëwee yuuru xaj dañ lay nàndal hmm? am na ñoo xam ne dañoo yuqu wadakul fiil cheikhaani wax na ko lépp ci way yi ah ay wadakul fiil maanaam yuqu ñay <laughs> mu ne ñun bi ñuy tarbiyu fële ca boggee ci chabulay ja am na ay mahjub yoo xam ne duñ musa naan ci ndaal suñ ndaal yi foofu ndaal yi duñ fa musa naan da ngay nit gis nit koo xam ne soxla bu tàng boo ko indi mais soo tànkee ndox jox ko non baax na baax na baax na ndax ñoom liñ gëm mooy secret bi ci ndaal lañ ko def yuur yi yuuru xaj yi ci ndaal lañ ko def soo naanee rek commencé gis li ñuy gis après loo gis rek nga ne lii yàlla la lii yàlla la mais yow loo gis ne lii yàlla la loolu maqaama la nekkul ku nekk la ko yàlla di may aha gis yaa ngi dégg mu lum ne yàlla la ah falamma araani wajtu annaka haadiri shahidtuka mawjudan bi kulli makaan maqaama googu nekkul ku nekk la ko yàlla di may mara Cheikh Hassane Deme moom bi mu gisee bàyyi la xam ne kii mooy jëmmu xam-xam sànq newoon naa leen muqaddam yu mag yi kenn ku nekk am na point boo doon wër sa àdduna ci bàyyi nga ko gis Cheikh Hassane xam nga lan moo ko manqué woon mooy yàlla jàngoon na bind yëpp mais bind yi ak yàlla du benn yow yaakaar nga ne Serigne Mbaye moomu doon wax mi njëkk a tarbiyu ci bàyyi su nekkoon ne bind yi rek lañ yor Serigne Mbaye kenn gënu ko mën naxu grammaire kenn gënu ko xam li balaaxa kenn gënu ko xam al adabul arabi macha allah sëñ Mbaye ni mokkale woon maqaama ba daan na wax man xaw ma sax ku mokkalul maqaama nan ngay bindee lettre macha allah rafet macha allah bind nekk borom xam-xam ci ak kulli mustawayaat léegi kooku su toppee ci bàyyi di yëngu-yëngu wala di yang-yangi xam nga ne nekk de beneen mbir la dafa am point bu mu doon wër mooy yàlla yàlla la doon wër moo tax ma neen yi al ilmu wal maalumu laysa shay'an wahidan xam-xam ak ka ñuy xam ci bar xam-xam benn xam ak ki ñuy xam ci biir xam-xam xam-xam mooy li ñuy jàng waaw fiqhu xam-xam la naxwu xam-xam la tafsirul alquran xam-xam la hadis xam-xam la balaaxa ba mu dal ci ponkam ñett yi xam-xam la arub xam-xam la mantiq xam-xam la waaye nag la ñuy xam ca biir xam-xam ba ak xam-xam nga du genn du benn nag léegi nag ndekete maalum gi ndekete la ñuy war a xam ci biir xam-xam yépp mooy yàlla ndax ba ñuy wax xikma lan mooy xikma mooy sagesse lan mooy sagesse lan mooy xikma boroom xam-xam ku nekk sa fànn da ne sa fànn mooy xikma ulama un nahwi ne nahw mooy xikma ulamaaul tafsir ne tafsir mooy xikma ulamaul mantiq ne mantiq mooy xikma ku nekk rek raat ci jëmale sa kanam bàyyi nag def ne al xikmatu ibaratun an maarifati ajallil ashyai wa alaha wala ajalla min allah xikma day firi xam li gën a rëy ci mbir yi te dara gënul rëy yàlla idan fa maarifatullahi hiya al-hikma kon xam yàlla mooy hikma ndax yàlla gën a rëy ci mbir yi kon moom mooy maalum bi moom mooy ki ñu war a xam Cheikh Hassane Deme loolu moo ko manqué woon bi mu dajeeg bàyyi te loolu moom manqué ngan gi yëpp dañoo rëy rëylu rek fa kam min axin saddathu nisbatu jaddihi wa taalimu ilmin saara min ahli xirrati fa kam min axin bëri na frère fii sorewul soo jàddee fii wala nga jàdd fii saara min ahli xirrati maanaa saddathu nisbatu jaddi li ko teree ñëw naan ci faydu bi mu tar bi xam yàlla day askanu ci maamam sama maam sama maam wa taalimu ilmin wala borom daara la day jàngal saara min ahli xirati mu mujj bokk ca ñañ nax ca yàlla ndax inna min al ilmi ka hayati al maknun laa yaalamuhu illa al ulamau billah fa ida nataquha fala yunkiruha alayhim illa ahlul xirati billah kon adduna bi yépp wax ji li ko jeexal mooy al ulamau kulluhum man saada aw lam yasud lam yablugu al murada wa rizquhum muraxamun ala nida kaya su'a fi man daa su'ada Serigne Ali Cissé moo ko wëy sëñ Aliou Cissé nee na al ulama borom xam-xam yi kullum ñoom ñëpp borom xam-xam yëpp waxuma la Sénégal kese fii ba Nigéria ba Soudan ba Tchad ba Turquie yaa ngi dégg ni adduna bi yëpp ba Saoudia ba madinatu rasulillah al ulama borom xam-xam yi kulluhum sëñ Aliou Cissé ma ko ñoom ñëpp man saada ku ci sang aw lam yasul wala koo xam ne nekkoo koo sang sa téere yi rek nga yor yoroo dara lam yablughul murada jotaguñ mbir mi jotaguñ ko sëñ Aliou moo ko wax wa risquhum seen wërsëg moo tax xamul nañ ko dagg alal nidaa ci woote soo xamee luy tarxiim ah, ci ah, naxwu am na buntu bu tudd baabu tarxiim nga bugg a woo ku tudd suur nga ne ko yaa Mansuur nga bàyyi la ca des ah Jaafar nga ne yaa Jaafa nga bàyyi bi loolu lañuy tuddee tarxiim Serigne Ali nee ne borom xam-xam yépp ku ci yeggagul ci bàyyi seen wërsëg dañ koo tarxiim kayaa a mu ngi mel ni yaa su a yow su a fii man da a su a daa ku bëggoon woo su a du nga ne yaa su a du nga bëggoon woo woote nga ne yaa su a mu ne xam nga dagg na xam nga wàññeeku xam nga manqué na mooy borom xam-xam yépp seen wërsëg ci yàlla daa des ndax yeggaguñ bunt bi nag mooy bàyyi bàyyi nee si rii saraaful xaafiqayni wa uqibat suyuuxun alaw hatta yaqula bi de jàng ko xëy yomb na waaye xam maanaa bi jafe na te layal ko tamit jafe na sirri sama secret man bàyyi saraara ñaan na fil xaafiqay ni penkook soow fi adduna bi tàmbale ba fi adduna bi yem ci gàttal jabalu xaaf fam tàmbale ba fi jabalu xaaf yem sama secret rañaan na ci des dara benn place desul bu uqimat jirim loo nañ si yuuxul sëriñ du sëriñ yu ñàkk solo yi mais sëriñ alaw yu kawe ca yàlla ñu doon jur ay doom maanaam ñu doon yeggale yàlla te ñoom ñëpp yàlla def na leen ay jirim xatta yahula jaridu ba ci fatug dee bañ génn àdduna kenn dootu ci xamal taalibem yàlla lu dul nga ñëw ci man man Cheikh Bara kon wax li may wax ni ay nassu la de waaw la mooy bàyyi fala aarifun illaa bi baabiya waaqifun udiru wasqil qawma turan bi faydati wala bi xamrati texte yi bëri nañ lool lool lool bàyyi nee ne afaada ilayya minhu haqqan wa innahu afaada li gayri min fuyudihi ba yonent bi moo ma sottil ba ma feesal keneen ci góor yàlla yi di waaxu ñëw pour ñu sottil ko yonent bi ne ko demal ci ibrahima mooy mooy sottilaate loolu bàyyi moo ko bind afaada li gayri min fuyudihi bàyyi barhaamul xadimul munafisu mooy lan bàyyi nee na yonent bi nee na barhaam alxadimu ki may liggéeyal sama serviteur bi al munafisu mooy sennal mbir yi ñuy senn ca yàlla lépp lu mu dara du senn loolu bàyyi kon xam nga ne su nekkuloon maqaam boobu la bàyyi yor yaakaar nga Serigne Aliou Cissé xam-xamam ji gi bëri gi mu yor dana ñëw bokk ci ginnaaw bàyyi Serigne Aliou Cissé xejul ci loxo benn waliyu yàlla Cheikh Hassan Deme xejul ci loxo benn waliyu yàlla waaye dañoo dajeeg borom jamono nga xam ne yàlla daf ko féetale mbir yi yàlla jël lépp jox ko ba mu mujj bàyyi nee man sax xamatuma mbir mi ni demee ndax xabaani wa aataani wa ajzana naylahu wa hatta haba ma zikruhu laysa jaahiza xabaani yonent bi may na wa aataani may na ma wa ajzala naylahu may na ma wa xatta xaba ba may mam loo xam ne ma zikruhu laysa jaiza pour waxtaanee ko daganul lu daganul loolu nag mooy li cheikhaani waxoon wallazi laa yuqaalu laysa yuqaalu moo ñu tënk de waaye su nekkuloon loolu rek danañ xëy benn bés rek toj kaas yi yàlla xam na mais dañuy taaratan nu qaddimu rijlan yaani géeri ifsa isaka sirri wa maratan oxra nahjim yenn saa yi ñu ñu daal di dellu ginnaaw adaban lil si kon Cheikh Hassan Deme euh, borom xalwa yu bëri yooyu daan dugal bàyyi xalwa macha allah nee na dafa gént benn bés euh, ñaari nit ñëw xotti biiram mu wax ko bàyyi bàyyi bind ko leetar di ko ci amal gis naa leetar bi bi xat yeeti Cheikh ci loxol bàyyi bàyyi nee ne haasihi bisharatun bi ictibaariha wirasatan muhammadiyatan wa qad waqaa lil abdil xaqili xaqiri mislu haasihi ruya fi bidayatihi walhamdulillah bàyyi ko bégal loolu mbégte la ndax loolu sax day wane ne yow waaris muhammadi da ngaa doon ndax loolu dal na ma ba ma ba may tàmbali <laughs> bàyyi ne ba may tàmbali loolu dalal na day wane ne rek waaris Muhammad yi walhamdulillah wasalaam Ibrahim ibn Abdillah loolu bàyyi moo ko bind lettre bi 1378 1378 ci gàddaay yonent bi saay sallam dugg na xalwa Cham Cham moom Cheikh Hassan dem Cham mooy fi école bi nekk aljabda boobu nag jamono yooyu yaakaar naa école bi nekk gu fa woon moom Cheikh Hassan dem nee amul benn garab gu mag gu nekk Cham Cham daa bëri garab amul benn garab gu mag gu nekk Cham lu dul liggéey na ci ron garab gi zaxtawiqu zaxtawiqu ci latif latif wir dina fa latif li mu zaxtawiqu mooy cent seize mille quatre cent quatre-vingt-sept yaa latif cent seize mille quatre cent quatre-vingt-sept yaa latif garab bu nekk ci Saam ci garab bu Saam yi garab yi ni bëree woon garab bu nekk rek Cheikh San na garab gi jàng fa zaxtawiqu ci yaa latif cent onze mille six cent non cent seize mille quatre cent quatre-vingt-sept mu ne garab yu ndaw yi nag su nekkee ne garab gu ndaw la mu jàng fa am xaw yi am xaw yu latif mu ne am xaw yu latif nag soo xamul am xaw yi moom mooy 16641 16641 latif euh, mu tëdd guddi mu tëdd guddi gént gis gis fa école boobu école bi nekk fa mu gis fa école ginnaaw bi yépp mu gis fa ay arab yuy jàngale ci école bi mu bind bàyyi leetar ne raaytu fi lmakaani madrasatan qaimatan yuallimu fiha al arab loolu la bind bàyyi gis naa ci place bi daal école buñ tabax ma gis ay nit ñu weex arab ñëw di jàngale foofu ñu dem ba école bi tijji macha allah jëmmi jamono bàyyi ànd ak moom ci école bi bàyyi ne ko haza tawilu ruyaaka min qablu qad jaalaha rabbi haqqan lii mooy sa pirib gént da nga géntoon yàlla def na ko muy dëgg hmm? yoo xam ne macha allah at la yu feesal mbëggee yu ñu feesal taalibe gu mat set musul xëccoog bàyyi macha allah daan koo dugal xalwa di ko sant comme sëriñ bu sant taalibeem bëgg bàyyi nag mbëggeel goo xam ne man gis naa muy wax bàyyi ba jooy man Cheikh Hassane gis naa muy wax bàyyi ba jooy noonu nag macha allah ngay continuer dem ci ñëmwul nax wi xam nga muqaddamu Baye Niass yi eh, ci ci ci biir Sénégal Serigne Aboubacar Niass ñoom Serigne Aliou si ñoom Thierno Hassane Ka ñoom Alhaji Mouhamad Zeynab ñoom Ibra eh, Ahmed eh, Thiam ñoom Ibra Fall ñoom Ibrahima Mahmoud Diop ñoom ba Bayam Bayam Mahmoud Diop d'abord dara hmm, ak ñoom Yahya Ly jigéen ñoom Seyda Ruqya Niass ñoom Cheikha Mariam su nekkee ne dem nga ba ci Mauritanie muqaddam yu mag yi Muhammad ibnu Nahwi moom moo njëkk a jàpp ci baay ci naan wara gars yi di ko wax saabiqu saabiqina wa cheikhu yasqi wa yudiru lkuusa tilwal kuusi eh, Muhammadul Misri ñëw cheikhaani ñëw Muhammad Abdullah ibnu Sayyid Tumashni Muhammadul Muxtaar ibnu Muttaba mañ doon wax sànq Muhammad Lamin al Jakani ak Ahmad Muhammad Mahmoud Kabir ñoom Seydi Haadi ibnu Mawlud Fall ñoom Mariam bintu bintu Muhammadin Tulba rakku seexaane bi ñoom abdullahi ibnu abdullahi jigéen la ñu koy woowee abdullahi ibnu abdullahi ndax maqaama gi muy dund ci yàlla imranatu bintul madda gaa yi bëri nañ lool soo demee ci téere googu daal euh, rijalun wa euh, wa rijalun wa dawrun euh, dawrun wa adwarun fi fi zilli saahibil fayda da nga gis macha allah cheikh mouhamad abdullahi yaatal foofu mbiri yaatu na lool ba nigéria Nigéria nag la fa nekk ci muqaddam <laughs> Cheikh Ibrahim nag du euh, kenn mënu koo lim daanaka ndax xam nga Nigéria dafa euh, moom réew mu bëri nit la ndax fi mu ne nii mën na ñaari téeméeri million euh, doomu aadama bàyyi radiyallahu anhu taalibe bi foofu rek mën nañ quatre-vingts millions ci loo xam ne dañ ko dégg ci làmmeñu Obasanjo nekkoon ancien président Nigéria kon nga xam ne ndekete mbiru bàyyi dafa yaatu tasaaroo ba nga xamee ne mbir mi nag daa tabaxu ci yàlla moo tax mbir mi di continuer tey sëriñ bi Cheikh Mahamadul Mahi moo nga ca Soudan ñu koy tabbal ay garaat di ko wax tey ne mooy raisu al ittihad al islami al ifriqi foofa ca Soudan Soudan nekk réew moo xam ne bari ay taaril bàyyi la gaa yaa ngi koy gafelu muy dundalaat la nga xam ne bàyyi moo ko jiwoon su demee Soudan noonu la su demee Niger noonu la su demee yaa ngi Tchad noonu la fu mu mën a dem ci adduna bi mooy firi alaaka yi relation yi nekkoon ci diggante gi relation yu tabax ci yàlla la yoo xam ne yàlla mooy fondement bi moo tax ba léegi muy dox su nekkoon relation yu ñu tabax ci économie la wala yu tabax ci alal konoon tey sëriñ Mahi di dem tey di toj Soudan di toj Nigéria di toj feneen ak feneen di dem ba buuru Saoudia bi di ko invité yaa ngi dégg de euh, mu fay def yu màgg yu rëy yi mu fa def euh, te yàggul lool ndeketee mbëggeel ci yàlla hmm, kaanat mawaddatu salmanin lahu rahiman walam yakun bayna nuuhin wa ibnihi rahim ndekete bëggante ci yàlla rek mu am solo àndoo ci yàlla rek mu am solo ñoo ñaan yàlla yàlla yàlla may loolu kenn musul njëriñu ci àdduna lu dul yaa ngi jëlee njëriñ bi ci kàndo kàndo kàndo nag su nekkee ne ci yàlla la mu gën a am valeur gën a màgg ci yàlla baay ne fa asabtu hubbal mustafa duna xayrihi wala umma kalsumi walaw kaana maryama la ilaha illallah abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul war ngay sant Yàlla ñun lay tijil kese la doom si di baram